waaw fi mu nekk nii Ahmed Aïdara day ñibbi donc bàyyi nañ ko li am solo moo doon loolu parce que loolu la ñu doon euh, maanaam euh, ut ci ci mbir mi mooy mu ñibbi këram moom ak ñi nga xamante ni moom la àndaloon moom lañ àndaloon donc euh, ñu ngi ko doon toppee ci infraction yu bari donc juróomi juróomi teg teg daaniñ ko tegoon teggi nañ ko mu des benn kese maanaam rassemblement non autorisé rek lañ jàpp maanaam dañu dajaloo dajaloo boo xam ni kenn autorisé wu ko te ñun ñu jàpp ni dajaloo loolu moo tax ci point boobu quand dinañ continuer xeex bi et puis dinañ def appel. la décision c'est bon je dis je c'était une décision quelque part qui nous satisfait à moitié parce que nous aurions aimé qu'il soit relaxé sur tous les chefs d'infraction pour lesquels il est poursuivi euh, mais la justice en a décidé autrement en retenant un point Maintenant, ce point sera effacé en appel parce que nous allons continuer le combat pour sa libération définitive. merci merci merci. dañoo bëgg a wax tout simplement que. kilifa diine yi. kilifa aada yi. léegi nag jot jot na. bu kenn xaar. ñun ak alkaati yi ngeen di gis nii. alkaati yi suñuy mbokk lañ. dañuy def seen liggéey tout simplement. soyez du côté. appartient aux Sénégalais. bu soobee yàlla nous on se donne ñun à se faire cueillir on est prêt dama que nous disons que c'est un pays pétrolier c'est un pays en voie de développement aujourd'hui le Sénégal qui a une euh, posture extraordinaire au niveau international au moins nous pouvons concevoir que chaque fois qu'un Sénégalais a envie de dire quelque chose a envie de manifester ou a envie de déclarer ses possibilités Macky Sall et ceux qui sont autour ne sont jamais d'accord. Et pourtant, on était derrière lui en Et pourtant, tout le peuple sénégalais, sans exception, était derrière lui en Et c'est pour cela qu'il est aujourd'hui qu'il a brigué le suffrage sénégalais pour être président de la République. Il se prépare pour avoir un troisième mandat qui est inexistant, impossible et qu'on ne laissera jamais passer. Ça, c'est pas moi qui le dis, mais c'est le peuple sénégalais qui est derrière ma foi voilà. nu ñu waree di wax ni kat ñun nañu fat na mercredi incha allah na ñëpp genn alerte ñëpp genn ñëpp na ñëpp génn ñu joxe suñu ñu joxe suñu bakkan bi dinañu valider suñu liste ci nii wala ci nee waaw merci beaucoup. nañu may askan wi jàmm Macky Sall fatt na nit ñi nee ko Macky Sall fatt nañu nañu ba Macky Sall dégage. soxna si gis nañ gis nañ gis nañ lan ban satisfaction nga am tey. yow nga xam ne ci ci élément 2A nga bokk. kontaan kontaan rek lañu am parce que lii lañ doon xaar que dañu wóor ñi mës a wóolu suñu justice na dañ ko mës a wóolu te xamoon nañ ni même buy buy àtte dina àtte teg ko ci yoon waaye du du du làq daraay politique dañu kontaan parce que euh, Ahmed dafa nekk suñu suñu suñu suñu leader mais dafa pas suñu leader autant pour mais dafa nekk suñu suñu suñu xarit nekk suñu collègue de travail moo tax fu mu nekk dañuy ñëw pour soutenir ko voilà lii rek lañ doon xaar ci suñu justice et nous sommes vraiment satisfaits euh, mbégte daal lii daal mooy mooy jàmmi Sénégal voilà. il nous a beaucoup manqué mais xam nañ ni il était à nos parce que def nañ lu ñu man pour euh, au moins combler vide bi nga xamante ne moom la fi bàyyi woon et c' était ça l' essentiel Ahmed am na mais am na yeneen Ahmed biir 2A TV te mën nañ ko xaar ci yeneen i. yeneen yi yeneen yeneen bés incha allah ñooy sant yàlla bu baax kontaan nañ affaire ñu jaay la ci man sama jarbaatam laa yaayam ak sama yaay ñoo bokk ndey ak baay kontaan nañ trop lii rek lañ mënoon def pour rendre nit ñi justice nit ñi dañoo sonn nit ñi dañuy jaabante injustice bu fi lii bu amoon mais heureusement ba na alhamdulilah sant nañ waa Guédiawaye aussi gis nañ seen participation et tout. askan bépp ñu ngi leen sant ñu ngi lay gërëm ku teew ak ku teewul yëpp ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm gis nañ ñaan yeeg yëpp barke alxuraanu karim gis nañ ñaan yeeg yëpp fu ay toll rek sa xol tooy na pour ñaanal monsieur le maire Ahmed Aïdara mu génn ci jàmm loolu lépp yàlla def na ko borom géejawaay fas yéene waaje élection député nag ci kàttanu yàlla fas yéene dem assemblée bu neexee yàlla jusqu'à bout bu neexee yàlla incha allah rabbi waaw salaamaaleykum avant tout damay présenté bu d'abord man la yor affaire logistique bu Ahmed Aïdara man la aussi yoru affaire logistique bu Ahmed dara nekk président mafia kàcc kàcc bu Ahmed Aïdara fii si Géejawaay euh, procès bi euh, ñu ngi koy rafetlu ci ni ci ni mu doxee vraiment juge bi ni mu doxalee procès bi yoon dong la doxal yoon la àtte te Ahmed waruñu ko woon sax dèjà waruñu ko woon sax interprété parce que keroog bi muy dem man mii di waxee yow ci ñu àndoon ak moom ci laa bokkoon ñu intercepté ko bàyyi ko ci kaso bi pendant 10 jours ñu xam ni loxo mi comme ni ko amuñu benn dossier bu teg si kawam bi ñu commencé indi jéem nañu indi beneen dossier teg ko ci kawam muy wane ni géejawaay dafa amoon euh, arrêt préfectoral boo xamante ne dafa waroon euh, kenn waru foon marche loolu moo tax dégg mais loolu bi ñu ko waxee avocat yi dañu jël parole bañ loolu bi tamit mu xoolee liiraat lépp dafa mujjee annulé lettre boobu ñu atte ko ci atte normal def délibération bi daa une heure temps bi ñu ko génnee daa une heure temps bi aussi ñu bàyyi ko mu ñibbi waaw man maa ngi woon ci salle bi waaw waaw maa ngi woon ci salle bi waaw am nañ bàyyi nañ sunu maire bàyyi mu nekk gaynde ko xam ne jàmbaar la man mii di wax yow man maa koy jëli maa koy jëli man maa yor caabi otoom maa koy jëli léegi ànd moom dem Sébikotane dem jëli ko Sébikotane ñu ko gars yi xam non génnagul tribunal mi ngi si biir tribunal bu dee génn tribunal léegi dañ may woo ñu ma jiit léegi otoom otoom ma ngi ni door ñëw man maa yor moom dem jëli ko incha allah Sébikotane ñu dem jëli ko quoi incha allah waaw escalade bi mais du yëg ci escalade bi ci ginnaaw escalade bële lay yëg bu bële bi waaw c'est le peuple souverain billaay walaay talaay ana tooñu ko defu dara def ko dara boo ko tooñ le départ le départ Macky Sall jaay doole mais dañ koy wane ne Sénégal ko moomu ko ak ñu mu àndal yëpp moomu ko parce que ragal moo waral lii Ahmed Aidara dafa ee eh. Ahmed Aidara suulu gaz moo ko teree xeeñ suulu moo ko ragal mais Aliou Sall sàcc la ni mu demee tout le monde savait que le procès était purement politique parce que Ahmed nag parce que Ahmed dañ koo tooñ moi j'étais là-bas koo tooñ li ñuy wax naan euh, dafa créer attroupement c'est le commandant même qui a été qui a qui a créé parce que man j'étais là parce que ñun ñoo àndoon wàcc dem commandant fekk ko fa wax ko lu mu koy wax ak ñenn si ay gàddu kooram comme li ñu xamee ne ak maire moom lu mu baaxoo war a dox yu wax ak askan bi jëm saafante ak askan bi donc bu duggee si bu génnee këram di dem di liggéey bu ko neexee dox dem wuti fi muy liggéeyee mais là par là si la commandant ñëw rek attaqué ko que ñu xam ne Ameth deful dara la dossier est amul benn motif bi nga war a téye waaye ñun xamoon nañu tôt ou tard. ama dina génn ci nii wala ci naa ndax buñ ko génnewul tey jii leneen mooy xewal kon ñu xam ñu Ahmed est le premier magistrat de la ville de Guédiawaye non xam nga non ñi ñi ñi ngi génn parce que ñi ngi def ñi mën parce que contexte bi tamit ni mu demee la ku nekk xam ne ñi ngi def ñi ngi def si tabaski ñii dañuy liggéey ñi dañoo nekk ay seen liggéey jàmbur ak yooyu noonu mais ñu fi nekk am na ñoo fi nekkal nit ñi ay responsable lañu nit ñi fi nekk ay responsable ku si nekk nag teewal na teewal teewal na la mais géejooy moom kon ni ko ni ñu ko xamee rek géejooy suñu géejooy nu ñëpp nit ñoo ko bokk am na nag bu ñu fàtte ne c'est le premier magistrat de la ville de Guédiawaye donc ñi fi teew ñi fi teew ñëpp si projet bi da nga ko fa war a da nga ko fa war a teewalee da nga ko fa war a teewalee jàppale ko soutenir ko waaw ñu xam nag ñu xam ne rek euh, ñu ngi remercier bu baax waa population Guédiawaye bi ak waa yeewu askan wi avocat yi vraiment seen taxawaay vraiment rafet na lool lool lool macha allah. lépp lépp la presse. non média bi moom média bi moom mention spéciale. parce que depuis boobu ba léegi chaque jour que jëfee ñi ngi taxaw chaque jour que jëfee ñi ngi taxaw donc ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp que le combat continue te seul la lutte libère pareeguñu nag dañuy continuer parce que suñu ak ak suñu yelleef kenn duñu ko xañ Macky Sall danoo jaay suñu ak suñu yelleef ñëw fal ko légitimement dafa doon layam layam yi nakate di wone ay kanam yi lappaaral sa waay ba nu ba nu ba nu ko nakate mu moo gën a yées sax ñu fi nekkoon Macky moo gën a yées dañ koy dañ wax parce que daf noo wor daf noo trahir daf ñuy xañ nu ak ak suñu yelleef waaye nag loolu nag mu xam ne nag seule la lutte libère duñ ko ko may si nii duñ ko ko may si naa te nag bu yowoon jël seen garde te xam ne élection législative yi ko ko cohabitation par force dafay am. Lat Diop la tontu la day am non ay Lat Diop moom. tontu ko tontu moom du ma. moom bojo bojo le chat n'est pas là les souris dansent. waaw. Ahmed na dëgg la yóbbu nañu ko si kaso bi ñoom ñuy profité dañuy dem campagne waaye dakk na seen campagne boobu noonu ñuy def noonu dakk na tey dañ leen a xañoon campagne dinañ leen xañaat campagne campagne résultat bi seen bàyyi Alioune Sall génnut dañ ko ko interdit woon génnul tey Ameth mi ngi si kaso bi rek ñi ñoom profito Ameth génn na jeex na tàkk ñoom duñu campagne. gën leen dem gën leen dem.